Bienvenue sur Salam Vision. ñu ngi fii ci conférence euh, bu mag euh, mooy euh, golf jëmale ko si xel ñu ngi jàkkaarloog Alioune Fatou Diagne Fatou Diagne asalaamaaleykum Fatou est-ce que mën nga ñëw si conférence bi kan moo ko kan moo dama xam ne boo ñëwee. conférence tey bii daaw la waroon nekk septième waaye mbas mi. ñu ci septième édition euh, muy daara alxaq suñu ustaas di euh, Mouhamad Mbaye ñu ñoo nekk ci jumaa yu cité nationale jumaa yu Ousmane Bun Affan foofu la ñuy jàng commencé waat ñoo jàng na moom nag en ligne rek la doon jàng nag léegi recommencé waat nañ ci dem nag Euh, mën nañu wax euh, thème tey bi thème bu am solo la. thème d' actualité delluwaat nit ñi seen borom. ci yonent bi sallallahu wa sallam. Euh, lan nga a wax tey waaye dafa am benn message a maanaam feebar bu am. muy dégg adduna bi ay junniy junniy nit di dee. ñun suñu dëkk méttee gu waaye mën naa méttee ci suñu comportement. gëm nañu yàlla ñun ñëpp de waaye nag yàlla yàlla bay si nañ ko gëm di ko ñaan pour mu dindi si mbas mi waaye na ñuy def tamit di protéger suñu bopp maanaam di def li ñuy wax mooy xaw a soriantoo mooy takk masque mooy raxasu set mën nañ ko def ñu ko ci boole ndax bëgguñu ñu ngi toog di gis suñu nit ñuy dee ñu ñuy wax diggante ñaari at li ku nekk boo xoolee li la fi ci ay nit ay proche ay ñoo xamoon dafa nekk boo gisee fu nekk rek jigéen bu nekk bu ñëw rek temam la indi te tem bu ci nekk day retenir ñun duñu conférence yi nga xam ne conférence bu mooy toog yore parole bi ku ñëw ñu annoncé la mhm. enveloppe yi ak caxar cabari bi ak boo ko xoolee mhm. du bii bii c'est spécial moo tax ku fi ñëw benn yoon doo ko bëgg a rate mhm. te ku fi ñëw di jigéen wala sax ngay góor di nga ñaax yeneen jigéen yi ñu nekk ndaw wala ñu nekk mag pour ñu ñëw jàng seen jigéen que yàlla boo ko bëggee jaamu il faut nga xam ko. boo ko mais da nga jéem a am lenn xam ne ci ngay jàppandi pour mën a waaw sori ko. li mu sant muy alxuraanam ak suñu Seydina Muhammad. mooy suñu message bi koor bi. waaw ci weeru koor bi. dama leen di wax ne koor dafa nekk chance pour jullit. muy weer woo xam ne yàlla moo ñu ubbil xéewal yëpp jëng seytaane bëgg ñuy def lu baax yi suñu amee ñaar dërëm nañ ko wecceeku jël ca joxe li ci des bu ñu bàyyi kenn mu sonn tant que ñu ngi koy mën na ñuy jàppale nit ñi na ñuy jàppalante suñu biir bu ñuy waxante dëgg waaye fen na ñuy bàyyi lépp loo xam ne moom la yàlla bañ di jéem ci lu baax loolu dafa noppale. jërëjëf kooku mooy Adja Fatou Diagne ñoo ko déggandoo tey mooy euh, conférence bu mag. nga xam nag ñoom oustaz Mohamed Mbaye ñoo ko organisé chaque année bu jot. mais xam ngeen ni daaw euh, corona bi tax. Euh, macha allah kilifa yi teew nañ fi. di jigéen di mag di ndaw di sensibilisation bi. delluwaat si yàlla delluwaat si lislaam moom la am. conférence bi nag ñu ngi weer nag ku nekk na jël parole. Euh, parole boo xam ni dañ ta adressé à tous les sénégalais. rek moo doon sama message mooy message bu Fatou Diagne ñoo ko déggandoo xanaa gën a delluwaat euh, di sensibiliser nit ñi jël seen i motuwaay. mooy les mesures de jëmale ko corona bi nga xam nag. daf fi ay gàllankoor un peu partout dans le Sénégal macha allah ñuy euh, di régressé dellu ginnaaw mu lay ñaan borom bi ngeen góorgóorlu takk euh, surtout éviter euh, le coronavirus. feebar baa ngi fi partout askan baa ngi dee si le coronavirus mbokk yi jërë ngeen jëf. Bienvenue sur di Vision.